عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق waaw mën nañu àññi reculer ndax mu génn alhamdulilah wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ñu ngi ci Parcelles ci levée corps laaj Mouhamad mu ko dem Mawlana Cheikh Ibrahim ci Parcelles unité 21 ñu bàyyi leen ngeen teewlu levée du corps macha allah Cheikh Baye Lamine Gueye si Cheikh Baye Mamadou Amine Ibrahima Niass Hadi mu fi tamit ak moo dem Dakar yëpp yëpp yëpp macha allah ñu ngi fi gunge Alaaji Mouhamed dimbali si si si si bu jëm yal na yàlla yokk leen yal na ko yàlla yërëm ci barke Mawlana Voilà. Mâine, mâine, oh! Mâine, mâine! Mâine, mâine! ايوه ايوه ايوه اللهم صل على سيدنا محمد waaw mbooloo mi rajo bi jàpp yàlla bu baax ci sayyiduna Muhammad sallallahu jullit yëpp xam nañ ko bi xam na ko waaye itam jëfam boole na lépp mottali ko yal na yàlla yërëm yal na xaari aljanna na aljanna di këram yàlla bu mu fekk fitna yàlla bu mu ba fitna kii tëdd taalibe Cheikh jokk mbiram lépp ci buntab sëriñ aadi ñu wëlbatiku mu xam ne xadarati bi du jeex mu wékkaat mbiram lépp ci baaba su ziyaara baaba amee ba jàpp ne moom mu la ñuy ziyaara lim mën ci jëf ci wax lépp ku ko xamut xame nga ko ci loolu waaye bis bi suñ teewee ngir moom te mbir yi naa ngi koy xaar waaye waaye nañ tënk mbir yi ñaanal ko yàlla yàlla yokk leeram amiin lool bi xormati rasulillah sallallahu alayhi mu ko yóbbu moo ñuy jël si kañ la yàlla na yéex yàlla fekk ci lim ne woon lu ëpp lim ne woon Cheikh Ibrahim nag mooy sëriñ bu nga xam ne sëriñantu dawut jëm ci kenn ku bëgg lu texe yaay daw jëm ci moom kon kii suñu neexee seede ne aji texe yàlla yërëm seeni waajur ñoom ñoo doon jokk waayam ci su tournée dal waaye suy dal rek ci jëm yàlla ji la daan dal mm-hmm. def buntam mooy Cheikh Ibrahim jëmm ji taxu mu taxal ko ci sëriñ aadi jëm ji taxaw mu taxal ko ci baaba ku ko xam rek ci mujj xam-xamam baaba nga ko xamee waaye soo ko xamee ci baaba itam ci jëfam jëf ju rafet la kon ñu koy ñaanal yàlla fiñ ñu koy yóbbu dama ne fi ñu koy yóbbu mooy Medina Cheikh Ibrahim li nga xam ne Cheikh Ibrahim na ko nee na Medina Ibrahim fidaawu na ko te fuñ ko kuñ fa denc rek te képp kuñ fa denc rek am nañ yaakaar ci yow na ñaan ci yow am nañu yow am nañu yaakaar ci yow moom mi daal nee suñu sëriñ bi daal o oh, texe na texe na ndax mujj giñ koy xamal nee na mujj giñ koy xamal dafa langaamu ci koo xam ne. dafa langaamu ci ko xam ne. muy Cheikh Baba. muy Cheikh Baba. Baba. Cheikh Baba. loo tënku tënku. loo tënku tënku. soo ko gisee rek tinkiku. nee na boo ko gisee rek tinkiku. ci zahir. ci zahir. ak ci baatin. ak ci lu mu dogu. ak lu mu dogu. yàlla ànd ci. <coughs> moom du dogg ci lu yàlla àndul. ci lu yàlla àndul. jëm ku ko xam. ku ko xam. xam ne mooy baaba. xam ne mooy baaba. baaba mooy moom. baaba mooy moom. barki démb la fi baaba jóge. barki démb nekk baaba jóge. waay waay. waay waay. ku gisul tegtal yooyu. nee na képp koo xam ne gisoo tegtal yooyu. war nga koo xool. war nga koo xool. xoolaat ko yal na yàlla yërëm ko. yal na yàlla yërëm ko. Cheikh Baye. Cheikh Baye. ñaanal leen mbooloo mi. ñaanal leen mbooloo mi. Kaolack la ñu jëm. Kaolack la ñu jëm. yal nañ dem. yal nañu dem. yal nañu àgg. yal nañu àgg. yal nañ ko jébbal boromam. te yal nañu ko jébbal boromam. mu am yërmande. mu am yërmande. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. Cheikh Baye bisimilah. Cheikh Baye bisimilah. yàlla atte it fa tabaarakallaa barki démb bi nga xamee ni. woote na ngan fii. moom imam Mouhamed Jim Lo mu baax muy tëdd yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeem keroog ñoo fa bokk yandu ak Ahmadou Ba ministre nag nee mi ngi feddali kóllëreem digganteem ak bokk yi mi ngi feddali wëllëreem digganteem ak mbokki Jim Lo mi ngi feddali wëllëreem digganteem ak waa kër Cheikh Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu yal na yàlla tas ci barkeem nee mi ngi leen koy jaale ci biir ak ci di leen wax ni yéen a moo nekkoon ànd ji yéen ba Kaolack waaye dafa am ngant waaye nee na incha allahu ëllëg dana ñëw ci dëj bi ci àllarba ji waaye nee na alxames dana dem ba ca sëriñ ba Kaolack dem jaale ji ko jëmm du jant ji loolu la waxoon ni nañ ko jottale ci mbooloo mi mi ngi jottale ñaanam di ñaan yàlla mi nga xam ne dara teew ko imaam ji Mouhamed loo yàlla na yàlla def mu xippee àjjana ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala Seydina Mouhamed wa sallim am nee na asalaamaaleykum imaam Atoumane Ndiaye nee na mi ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. yàlla nag daf ñu jàngaloon ci alquran. nee na yàlla daf ñu jàngaloon ci alquran. ñu bañ a dugg ci kër. nee na ñu bañ a dugg ci kër. booy dugg ci kër. booy dugg ci da ngay jaar ci buntu bi. da ngay jaar ci buntu jaar ci palanteer wóorul. fii ci jàkka ji fii. fii ci jàkka ji fii. yàlla dogal na maa fi jiitu. yàlla dogal na imam Atoumane Ndiaye. mooy kilifa gi. ji mi tëdd moo toppoon ci man. nee suñu bay bu baax bii suñu sëriñ bu tëdd bii tëdd moo toppoon ci moom. te mu suñu réeroo benn yoon. te ñoom ñaar mu suñu réeroo benn yoon. amul benn semaine. nee amul benn semaine. boo xam ni. boo xam. oowuma ko. nee na ow sëriñ bi. balaa juma. balaa juma. wala après juma. wala après juma. wowuma ko. wowuma ko. bi muy dem Kaolack. bi muy dem Kaolack. maa ko woo. imam Atuma Ndiaye nee na moo ko dama am ziara damay dem Kaolack. mu ne ko dama am ziara damay dem bi ñu sëlmalee ma oo mu woo ko. samedi jotuma ko. samedi jotu ko. dimanche jotuma ko. dimanche jotu ko. ma oo ko. nee na mu oo ko. jot ko. jot ko mu ni ma. mu ne ko. xam naa sa numéro. xam naa sa numéro. su la jëlul rek yaram wi moom moo diis. nee na su ma la wuyuwul rek yaram wee xaw a diis. gisante wuñu dimanche. gisante ma oo ko. altine mm. nee na mu woo ko altine gisewuñu gisewuñu ma yónni sama doom mu yónni doomam ci moom ci moom wax ko ni ko ne ko jëndaaleel ko furu yóbbaaleel ko imaam ji moo ko ko maa ko maa ngi koy gis gëj ko gis su yaram yi bu yaram yi féexee su ajjuma bu ajjuma mu jiite mu jiite sama doom dem fa njabootam dem fa mu ni mu ne dafa génn. daa génn. waaye léegi mu ñëw. waaye léegi mu agsi. ci loolu ñu taggoo ci loolu la ñu tàggoo. ba ba. lii am lii am. feebar na. feebar na. macha allah waaye nag li ñu war a wax ci fii. waaye lii ñu war a wax ci jotaay bi. xaju fi xaj. waaye daal li wóor. waaye daal li wóor. moo di jim mii. mooy suñu sëriñ bu tedd bii tëdd. àndoon nañu. ànda nañu ci jullit ci ay ay jullit ni ñuy ànde ci diine ci diine ci islam ci islam ci sariya jàkka ji nag jàkka ji nag ki ñu ko tëral fii nee na ki ñu fa tëddal fii jé jàkk ji jéppiwu ko nee na imam jàpp ji jàkk ji jéppiwu ko béjum def na fi teraanga bu waxtaan na fi waxtaan bu delloo si ni nit ñi ci yàlla ba tey. si ne nit ñi ci yàlla ba tey. kon daal. kon daal. mu gudd. mu gudd. mu gàtt mu na àndoon nañu boo xam ne àndu julli la àndu diine man man la. àndoon nañu ànd boo xam ne àndu diine la àndu gor la àndu teranga la. man ci may àndal. maam imam nee na ku ci jàkka ji ci jàkka ji. fii fii. diine tax diine tax. ak islam ak islam ak sariya. ak sariya. suñu jàkka ji nag. nee na suñu génnee jàkka ji nag. leneen lu ñuy dox leneen lu ñuy dox wala ñu def ko waaye daal waaye jàkk ji daal biir fii biir fii sariya diine moom la ñu ànde yàlla ko yàlla yërëm nee na julit ak kan la ku bari xam-xam la macha allah ku bari xam-xam la macha ñu koy ñaanal yàlla jotaay ñu koy ñaanal yàlla jotaay bi jotaay bi jotaay ñaar lañ soxla ñaar lañ muy yërmande muy yërmande ak njëgal ak njëgal te kenn ko am te kenn ko am muy yàlla muy yàlla kon ñu tàllal ko yàlla nee nañ ci tàllal yàlla suñu law yàlla mu jégalul ñu ko mu jégalul ñu ko mu yërëmal ñu ko mu yërëmal ñu ko loolu loolu moo am solo ci loolu képp moo am solo kon kon yéen njaboot gi ñu war a dem ñu war a dem ñu ngi leen ñaanal ñu ngi leen ñaanal ngeen dem del si ci jàmm moom nag imaam bu dul woon yaramam kenn du ko jiitu jërëjëf Ndiaye. wallaahi jërëjëf Ndiaye. waaye nag. doomu aadama doomu aadama. day man day man day tële ji. dëgg la Ndiaye. yal na yàlla fay leen. taxawaay bi rafet na. yal na yàlla fay leen. liñ fi waroon wax yu bari yëpp. liñ fi waroon wax te bu bari yëpp. bari na bari na. waaye nag waaye nag. fii nañu mën a yem. fii nañu mën a yem. yal na ko yàlla jéggal. yal na ko yàlla yërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di leen di leen di ziare di wax xar xar. nee na président ansaaru diin mooy ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. ñu ngi wax inna lillahi wa li mu joxe moo ko moom li mu jël moo ko moom. yàlla lii mu joxe moo ko moom li mu jël moo ko moom. li imaam Seydou Cissé wax imaam Atoumane Ndiaye wax doy na sëkk. nee na li imaam Seydou Cissé wax imaam Atoumane Ndiaye wax doy na sëkk. ndax xew-xew bi amee ba léegi. ndax ba léegi. kenn kenn ci ñun nekkul ne itteem yëpp moom mooy papa jim imam jim kenn ci kenn ci ñun sa yitte yëpp mooy imam jim waaw kon nag bu sëriñ bi teewee di cheikh Ibrahima ibnu cheikh Mouhamadul Amin. kon bu sëriñ bi teewee di cheikh Ibrahima ibnu cheikh Mouhamadul Amin. ànd ak rakkam cheikh Abdallahi ibnu cheikh Mouhamadul Amin. ànd ak cheikh Abdallahi ibnu cheikh Mouhamadul Amin. ànd ak rakkam cheikh Ibrahima ibnu cheikh Mouhamadul Hadi. ànd ak cheikh Ibrahima ibnu cheikh Mouhamadul Hadi. ànd ak cheikh Ahmadou Sarr ibnu cheikh Mouhamadul Amin. ànd ak cheikh Ahmadou Sarr ibnu cheikh Mouhamadul Amin. ak muqaddam yi ñu xam ci Dakar yëpp ak jullit yëpp ak muqaddam yi ñu xam ci Dakar yëpp ak jullit yëpp képp kuñ tuddul buñ tuddee sëriñ bi tudd waaye imaam Jimloo mi dinañ wax li sëriñ Aliou Cissé waxoon ci waaye imaam Jimloo dinañ wax li sëriñ Aliou Cissé waxoon ci bàyyi julit xaqan la julit xaqan la nit ku baax nit ku baax ngi taaliba Cheikh Ahmed taaliba Cheikh Ahmed Tidiane ngi ku bëgg yonentu ku bëggante yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf mbokk yi Mawlaaya Seydi Cheikh Baye Mouhamadul Amin nee na ñu sant yàlla na ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak jëmmam nee na ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ne yal na yàlla yool ñu ci suñu musiba defal ñu li gën nee na jëmm ji tëdd nee jataay bi rek wane na moom mooy kan Cheikh Ibrahim nee na njabootu Maolana Cheikh Ibrahima Niass. ñoom ñëpp ñu ngi fii taxaw. te ñoo nga fële Medina di koy teeru. loolu li muy wane mooy kane. ne zahir bi mooy baatin bi. ni ko njaboot gi di teeroo fële. noonu itam la ko Cheikh Ibrahima Niass di koy teeroo. ndax moom nekk na nit koo xam ne. dëgg dëgg. jox na boppam Cheikh Ibrahima ci mboolem ay buntam nag seex Ibrahima rek lay gis kon dégg dëgg dem na foo xam ne fi la baax amee njëriñ ku xool jataay bi nga xam ne ay bokki deretam fi nga xam ne ay bokki lislaamam ñu ngi fi nga xam ne ay bokki lislaam ñu ngi fi gis ñoo xam ne shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nga xam ne shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah moom moo leen takkee moo leen boole jumaa dana ko jooy jumaa ji ak jumaa yëpp danañ ko jooy njabootam danañ ko jooy njabootam danañ ko jooy addina lépp danañ ko jooy addina lépp dana ko jooy waaye kii nekkul ku ñuy jooy wante nekkul ku ñu war a jooy nag nekk koo xam ne dañ ko war a ñee. kii daal dafa nekk koo xam ne dañ ko war a ñee. yal na yàlla bàyyi mbootam mu topp njabootam. jëmma ngi nii ku laabiroon la woon ci xam-xamam. ku la ci poosam. ku laabiroon la ci poosam ku tabe la woon. foo ko gis da gis muy ree gis da ngay gis muy ree. fu mu ko jëlee loolu ci Mawlana Cheikh ci Mawlana Cheikh Ibrahima. <coughs> dëgg dëgg. lii la mënal moromam. mbokk daal lii la mënal moromam. gis nañ teewaay yëpp. gis nañu teewaay ñëpp. teewaay bu ne rek am na lu muy firi. te teewaay gu ci nekk am na loo xam ne moom lay firi. wax ko démb. nee na wax na ko démb. ku nekk rek dangay foog ne yow yaa ko moom. nee na kenn ku nekk dangay foog ne yow yaa ko moom. yàlla la. waaye ndekete moom daal alalu yàlla la. yàlla nag moo soxla tey. yàlla moo soxla tey. te ku yàlla soxla woon. te ku yàlla soxla. ku yàlla ku yàlla soxla woon. doo fanaan. addina bi ñetti xarit fi nekk. addina bi ñetti xarit rek ñoo fi nekk. roxo bi bu demee. roxo bi bu demee. addina nee moom fii lay yem ak yow. addina moom dafay naan fii la yem ak yow. kon dëgg-dëgg. addina dafa mel ni lu am waaye amut. addina dafa mel ni lu am waaye amut. dañoo tukki si. dañoo tukki si ci addina. <laughs> wante dëkkuñu fi. ñaareel bi. ñaareel bi. Euh, bokk yi ak jegeñaale yi. bokk yi ak jegeñaale yi. ak xarit yi. ak xarit yi. def li yëpp. ñoom ñu ngi nii kenn ku nekk yaa ngi jéem li la war. waaye am na foofu ngay waaye ñoom kenn ku nekk am na foo xam ne fa ngay xem waaye sa jëf mooy ànd waaye sa jëf rek mooy ànd ak yow. te jëmm ji tëdd suñ kanam. dëgg dëgg dëgg. ba mu commencé jëf yàgg ba mu commencé jëf yàgg kon dëgg dëgg. <coughs> mu ngi jëm fi baax amee njëriñ. jëf lu baax amee moo ngi jëm fi jëf bu bu baax amee njëriñ. yal na ko Mawlana Cheikh Ibrahima teeru. teg ko ci loxo Cheikh a Tidiane. teg ko ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallama. nee naa jataay bi ñu mujjee def ak moom fii. ndeke booba fay tàggoo. doomu aadama dafa am fooy em. waaye doomu aadama fa am fooy em. am na kenn ku nekk koo xam ne gis nga loolu. am na kenn ku nekk koo xam ne gis na loolu. kenn ñemewut koo waaye am na la loo xam ne kenn du ko ñemee wax. ndaxte loolu borom bi rek moo ko ñeme. ndax borom loolu borom bi rek moo ko ñeme. lii borom bi moo ko def. lii borom bi rek moo ko def. kon delluwaat ci yàlla. kon ñoo ngi delluwaat ci yàlla. te xam ne. te xam ne. ñun ñoo fi des. ñun ñoo fi des. nañu jéem a jëf jëf ju baax. nañ bàyyante xel suñu biir. nañ bàyyante xel suñu biir. dëgg dëgg. dëgg dëgg. addina bi kenn dëkku fi. fi. <laughs> fii. def fi loo xam ne safaan la jaru ko. te nag def fi safaan dëgg-dëgg jaru ko. yal na yàlla fayante ak yéen. ah ne yal na yàlla fayante ak yéen nee na yal na yàlla fayante ak yéen. te biñ ko bokkee. te biñ ko bokkee. ci la daal di oyof. ci la daal di oyof. xalifa bi ma nga fële di xaar. waaye xalifa bi Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi ma nga fële di koy xaar. Mouhamadul Amin ma nga fële di xaar. fële nga xam ne Cheikh Mouhamadul Amin Baba moo ngi ko fay xaar. Cheikh Mouhamadul Aqib. ma ngi ko fay xaar sang yooyu yëpp ñu nga foofu di koy xaar imaamul akbar Seydi Ahmed Tidiane Cissé moo ngi ko fay xaar te ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak moom ay ñaan kon dëgg-dëgg kii daal ku ñu war a ñee la ñu gis <coughs> yàlla bu ko lameen jiitu ñu ngi gërëm taxawaay yi ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla bàyyi mboot bi ci biir njaboot bi. yal na yàlla bàyyi mboot bi ci biir njaboot bi. na nee na na. wante métti ndaxte jëmm ji. ndaxte jëmm ji. dafa mel ni dem na. dafa mel ni jëm dem na. waaye mu ngi ci suñu biir ba tey. waaye ba tey. dafa am ñuy wax dafa am loo xam ne dañ ko tuddee zahir. am loo xam ne baatin lañ ko tuddee. zahir mooy ni ñu gisantee nii. ni ñu gisantee nii. waaye baatin nag ñoom foog dafa am ñoo xam ne ñoo fay àgg. nag dafa am ñoo xam ne ñoo fay àgg. kon alhamdulilah beneen yoon. sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi dellu ci yàlla. ñu ngi dellu ci yàlla. ndaxte loolu rek moo fi nekk. ndaxte rek moo fi nekk. bu ñu defee leneen lu dul loolu. bu ñu defee leneen lu dul loolu. danañ def loo xam ne. danañ def loo xam ne. dundam yëpp. dundam yëpp. ndox ndox